comme gis ne dañ ko sàggane ba mu jaare fi fàttu tax ñu fas yéene porter plainte ci mbir moom pënd bi wëreegul ci coowul mbëkk mi lépp juróom fukki nit yu bëggoon jël gaal dem ca Espagne la ñu teg loxo ca ngin Popenguine taw bi ak i lorangeem gannaaw Touba ak Dakar Kaffrine di tëmb gannaaw taw yi fa am fan yi maire ba Abdoulaye Seydou Sow diggee ay saafara ci jafe-jafe yooyu la dañu teg xibaaru bitim réew xibaaru tàggat yaram ni ci yéene kaay yi buñ ci noppee nag ñëw ak yéen ci journal di màggal di xibaar yi ñeel Touba gi ñuy wàccal mu nekk li gën a fas ci ne suñu leen ci ay Elhaj Ndiogou Diène Abdoulaye Diop mo nek ci machine bi mbokk ñi leen di nuyu di rafetlu bu baaxa ba baax seen radio future media xibaaru digg becc gi dañ koy door ak mir mu doy war xew ah, ci hôpital fan fofu nak ah, ben xale bu jigen bu auto feloon mom la ay mbokam nak ko sonnoon lool ndaxte dañoo gis funeh dañ ko sagane eh, fu ne ñu da di jaar ak mom ci hôpital ak hôpital ah, ba sax xale bu jigen bi dañ ko dafa mujjé nak daal di fatu mbokk yi nag gis ne dara waralu ko lu may taxawu mo indi mu dal di fatu mbir mi nak nee duñ ko bàyyi noonu dañoo fasiyene porter plainte gannaaw mbir moomu xew fofu ci hôpital fan dañuy deglu papay xalé bu jigen bobu le mbay jeng ci jokkoom ak aw mbay dem sama dom dafa def choc ñu évacué ñu évacuer ko Albert roy bi ñe Albert roy wa Albert roy lañ ko yobu neurosi chirurgien ñu ñew ñuy xaar médecin bi bi mu ñëwee ñu nako ki kii dañ dañ def Albert roy ñu ñu indi ko fi won ko note bi ñu Albert roy jox moy nono mom du ko laal li malade Albert roy lo teelu waat len fofu ma ne ko dimbali ma ngir yalla ak yonent bi xoolal bu comme bu dee sa dom dimbali ma ngir yàlla nga xool comme sa doom mu noonu du ma laal dafa malade bu xool si kaw du ma laal kooku malade la comme moom fekk c'est mi ngi yor ñaari mbuus yoo xamante ne ay lekk ma ngir yàlla ma noonu ma ko laal du ma ko laal delluwaat leen Albert Royer ma dara Albert Royer waa Albert Royer médecin Albert Royer bi nekk urgence foofu jóg ànd ak ñun ba foofu wax ak moom muy soog a bind nee yóbbu ñu dafa scanner bi ñu dem dafa dafa leen te am na ay témoins ma présenté wala leen sama carte ma dafa agent de santé la gisul loolu man na dama koy porter plainte même ki même même même ñu koy évacuer ñu ngi ne ci nit ñi dañu war a def aspiration il faut ñu aspirer sang bi mu dañ ñu continuer bu lu ñuy def ñu def ko moom gisul loolu nangu ko def nangu def ben ben effort loolu du ma ko laal du ma ko laal dafa perte temps bu bëri parce que de de un moom non assistance à la personne qui est en danger la def ñu ngi taxaw mi ngi taxaw mi ngi taxaw si buntu ambulance bi mu wax du ma ko laal nekkul si bureau si buntu ambulance la taxaw dafa jënd ji woon reer bay ñëw te lépp ñuy taxaw di ko xaar njëkk nañ ko woo téléphone mu ne boobu du sama malade ñun mu ñëw mu mu envoyé ñu renvoyé ñu yóbbu ñu ñu dem leen urgence ñu urgence waa urgence envoyé waat ñu foofu encore dafa perdre temps foofu ça fait deux heures de temps mu nekkoon Mbaye Dieng di papay xale bu jigéen bi ak accidenté woon euh, ñu gis ne dañ ko sàggane ba mu fàttu euh, ci mbir moomu nag euh, RFM jokkoon na ci ak kilifa yi hôpital Fann ñoom nag njort ñu ne daañu addu ci xibaar sinu waxtu yi di ñëw ci mbir moomu xew wax ci meneen mbir di ñetti xale yu ndaw yoo xam ne dañoo lapp ca plage hydrobase di ñaar xale yu góor ak benn xale bu jigéen ñu laboon nag bërki dem ñaar ñu gisoon leen waaye keneen ki kenn gis ko woon

ay maintenant yu nekkoon sur place si wetu tente bi euh, non loin des lieux à peu près à 600 voire 700 mètres des lieux donc appuyé ak quoi maintenant de mairie bi dem nañu sur les lieux ñu set war nañu bay wi tard ma ci guddi gi mais malheureusement gis ñu victimes le lendemain euh, ñu woo à 7 h 41 minutes pour découverte de deux corps sans vie mooy derrière ñaari euh, corps derrière ginaaw série de pêche bu Saint-Louis donc le surlendemain aussi ñu ñëwaat ñu mooy troisième corps bi euh, à dix heures pour découverte de corps sans vie mooy mooy troisième corps yi nga xam ne ñoo déclaré woon ñoom la ñu ñoo noyé ci fële hôtel la Saint-Louisienne louis maa ngi profité ci occasion tamit pour un peu sensibiliser la population de Saint-Louis ak waa Louga parce que euh, très souvent les samedi et dimanche dañ gis ñu bëri ñu jógee Louga wala aux environ ñëw euh, Saint-Louis donc pour dispositif surveillance bi y a Saint-Louis amna ñun équipe de sapeur pompier moy S.E.S. Euh, ak appuyé par des maîtres nageurs de la mairie ñi nga xam ñi deux lieux Salsal ak hydrobase mais ni nga ko xamé Salsal ak hydrobase littoral bi yëpp dafa gudd maîtres nageurs yi mun surveiller littoral bi yëpp loolu mënul nek chaque fois son leen démé ci salsal wala hydrobase maître nageurs chaque fois dañuy samp ay poto poto yi moy woné limite gauche ak limite droite nga xam nit ñi ñi sangu ñu bëgg ñu assurer cette sécurité ci biir fofu lañuy ñuy nekk ñu mëna assurer cette sécurité. mu nekkoon euh, capitaine Ousmane Lo jiite euh, cinquante e compagnie sapeur pompier bu euh, Ndar deux heures tegal juróom benn minute ca Franceville ak Libreville nekk ca Gabon. RFM. xibaar To everything. xibaar yi li ci gën a fës euh, tey ci kon di réewum Gabon nga xam te ne euh, coup d'état moo fa am ci fajar gi ay nag euh, militaire daal di foqati nguur ga ci Ali Bongo ma fa nekkoon lalu gannaaw bi ñu joxee résultat yu élection présidentielle yéen fa doon amal te nga xam ne sax Ali Bongo lañ joxoon ndam li militaire yi nag ne loolu di ci dal daal di koy daaneel ba jamono ji sax moom Ali Bongo mi ngi ci résidence surveillée foofu nag ca Gabon askan bi nag mbégte lañ ci àndal buñ sukkandiku ci ay waa Gabon ci jokkool foofu la foofee ca réew ma Boubacar Dieng Ali Bongo militaire yi jële ko ci boppuk nguur gi te baltaakul daret tuuriwul Guifrey Ndongbia di doomu Gabon nekk ci Gabon fi mu toll nii moom mi nga xam ne nag mu ngi liggéey ci Gabon télévision xam ne ni fi mu toll nii mbir yi dal rek la fa nemmeeku donte moom mile ak ay naataangoom yi liggéey ci service public di ñu dem seen bërëbu liggéeykaay dafay jafe lool. man sax daanaka amoon naa ay jafe-jafe euh, ngir mën a déplacé wu dem ci sama bërëbu askan wi yëpp euh, ñu ngi ci euh, mbedd mi euh, ngir fësal seen mbégte an ci coup d'état bi te itam ànd ci ak militaires yi. waaw daanaka métti na lool nag ci journaliste yi ngir ñu mën a amal seen liggéey bu baax a baax waaye dëkk bi moom ànd na ak dal fii moom menacé wuñu kenn. personne n'est menacé. situation am Gabon. ñi nga xam ne ñooy ay doomam te nekk ci bitim réew soxal na leen itam. damay sant yàlla d'abord. Eric Kigeli di doomu Gabon mu ngi dund Sénégal 2018 ba léegi. waaye nag euh, gis nga bu askan tolloo fii nii di célébrer lu mel ni coup d'état loolu day wane ni ko sonnoon nañu loolu boo xoolee lii nii dañ ko xaar lu yàgg ngi soog a sotti. ak si lum su mënti doon moom mi le xel mu dalul lool. Euh, waaye nag euh, bu fekkante ne ni am naa mbégte ci wàllum libération bi nga xam ne askan wi am na ko dal na ànd ak tuuti ci tànge euh, ndax li ko waral moo di dañuy faral di gis ni en général bu ñu ñëwee ba xas ba toog pour ñu jóge fa daal day yàgg. ñi nga xam ne ñoo foqati nguur gi daal di dugal Ali Bongo si li nga xam ne moo di résidence surveillée tëj ko këram ki nga xam ne moo jiite woon Gabon li ko dalee 2009 ba léegi bu ñu sukkandikoo si bataaxal bu militaire yi mujjee génni moo di nag mu ngi ak njabootam waaye itam ñii di ay médecin am ñu ngi saytu wér gi yaramam Boubacar Dieng gannaaw coup d'état boobu nag RFM deme na leen ci ambassade Gabon bi nekk fii ci Ndakaaru foofu nag ku ci nekk fa ambassadeur ba sax fekk ñu ko fa ba ñu fa jaare woon bu ñu sukkandiku si suñu reporter li ñu fa mën a nemmeeku nekk mooy woto police ak policier yu bëree bëri eh, naka noonu tam ay barrières yu ñu fa teg Babacar Junior fa daanaka fukki waxtu ak fanweeri simili jot na fii ci ambassade bu Gabon ay takk yu takku ñoom ñoo wër ambassade bi danaka limbi tollu toll ci lu ëpp ñaar fukk bërëb bi itam ñu ngi ko wërlee ak ay barricade ab diir lañ ci teg ay policier jege ñu ngir mën a xam lan moo waral suñu teewaay ci bile bërëb gannaaw bañ leen ko xamalee vigile bu ambassade bu gabon boole ñu ak ki nga xamante moom mooy colonel layuba yore lépp luy wàllum kaarange fii ci ambassade bu gabon colonel bi duñu xamal ni moom sax waruta wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy journaliste yi waaye itam duñu xamal ni ambassadeur bi danaka teewagul ci bile bërëb waaye itam moom warul wax ak ñi nga xamante ñoom ñooy journaliste journaliste yi rax ci dolli di ñu xamal ni jamono ji ñu toll situation bi mu ngi ànd ak dal waaye ñu ngi xaarandi évolution situation bi fële ca Gabon coup bi am jamono ji fële ca Gabon militaire ya ko amal gannaaw ba ñu annoncé résultat élection yi ca Gabon yuy déclaré ni Ali Bongo Ondimba moom moo ko gagné ci la coup bi am di fàttali ni Ali Bongo Ondimba lu ëpp fukki at ak ñeent mu ngi ca bopp nguur ba Babacar Junior Fall doom Sénégal yee dindu ci réewum Gabon ñoom nag ñi ngi ci jàmm dal wokku leen dara xuruwu leen neneen nag ñi ngi bàyyi xel ni lii xew foofa ci réew ma tamit ngi moytu bu baax a baax dañ ciy déglu ki jiite Sénégal ya nekk foofu la ca Gabon ceex na aw amul dara li nga xamante ne nañ ko wala gis nañ ko ci gàllankoor bi nga xamante tegu na ci kaw sénégalais donc di ñaanal sénégalais yëpp yi nga xamante ne territoire gabonais eh, di leen ñaanal donc te di aussi sur euh, li nga mon ne moom mooy consigne yi nga xamante ne joxe woon euh, notre ambassadeur Mme Omar Thiaw donc j'ai ay dispositions yi nga xamante ne balaa élection yi et et puis son conseiller militaire donc on ñëpp ñu liggéey liggéey bu am solo ak euh, les compatriotes sénégalais les chefs d'association yi nekk fii joxe ay consignes kenn ku nekk na nga des secours. kër te xaar aussi li nga euh, en cas de besoin sénégalais bu am jafe fait koy war a mën a secourir ça a été fait par euh, l'ambassadeur du Sénégal donc on ngi ko ci sant di vraiment di ci féliciter sur toutes ces dispositions yi nga xamante avant lii pour le moment wax dëgg yàlla ñu ngi ci jàmm ak salaam dëgg yàlla ñu ci jàmm ak donc di seetaan télé di collecter ay informations di xool comment les choses évoluent jusqu'à présent jamono ji tout est calme am na ay jamono yu génn le matin def euh, seen déclaration wane seen contentement ci li am mais jusqu'à présent fa la d'abord di di xool rek di observer en tant que des observateurs parce que c'est quelque chose qui ne nous concerne pas nous sommes juste dans un pays d'accueil une xool rek règle et puis aussi jéem a mettre nos compatriotes sénégalais en sécurité ñu bañ du dugg ci yenn mu nekkoon Thierno Aw jiite association doomu Sénégal ya nekk foofule ci réewum Gabon des ci réewum Gabon ak ci mbir moomu ak euh, ñi nga xam te ne ñoo foqati nguur gi ci Ali Bongo di ay soldat ki leen jiite nag mu ngi tudd prise Oligui Nguema euh, kan mooy euh, waa joojule ak tamit taxawaayam ak nataalam dañ ci ànd ak Mouhamed Ali Mba Bon, xolé bu ba coup d'état bi boru 4 h du matin heure de Dakar la commencé 5 h du matin fallait ci Libreville Lolu nag gannaaw biñu joxé résultat élection présidentielle ñu wax ni Ali Bongo a gagné ak 64 des suffrages Qui di Brice Nguema mom nak bo xolé bu baax chef garde républicaine bi Bok ci bérets verts yi mom nak bo xolé bu baax bok ci président bi tekee la nekk ak Bongo moom Brice Nguema moo nekkoon et de camp Omar Bongo nekkoon ak moom ba mu ci 2009 qui di Ali Bongo bi mu ci 2009 ci le ko éloigné nguur gi indi ko Sénégal comme attaché militaire ci ambassade Gabon bu nek Sénégal 2018 nak mu dellu si euh, ci Gabon mu nommé ko haut commandant de la garde républicaine garde républicaine bobu nak danak mo gëna am doole ci réew mi aussi euh, ci Gabon mu nommé ko haut commandant de la garde républicaine garde républicaine bobu nak danak mo gëna am doole ci réew mi mom la gëna itam loolu moo wone daanaka sa lan moo tax amul rébellion ci yeneen euh, corps yi ñoom ñëpp dañoo d'accord ba police gendarmerie ak béret rouge loolu nag wute lool ak lu xewoon euh, ci 2018 gannaaw ay jeunes officiers yoo xamante ni dañoo bëggoon kon profito ci AVC kii di Ali Bongo pour jël nguur gi loolu nag te officier boobu mi ci prison kii di Brice Ngema mi jël Gabon tey jii moom wane nañ ci ay vidéo ni ñu koy tàccu ñu ne Brice Oligui président porte-parole Jean bi daanaka ancien enfant de troupe la jaar militaire bu Sénégal la jot na sa ñëw yàggul ci réew mi na kon fête cent ans Britannique militaire yi ñu célébrer février 2023. Mohamed Ali mu baax yeneen i xibaar jëm ci xew-xew boobu ca Gabon di coup d'état ba ci sunu xibaaru bitim réew lay doon ci kanam tuuti ak Fama Dione daa ngeen ci dégg sax kàddu yi nga xam te ne eh, kii di président ba woon Ali Bongo Ondimba daan dañ koy yëkkati gannaaw biñ ko daanalee une heure tegal fukki minute ak ñett ca gàpp xodd ba ak ngomen nekk ci Pout. rajo askan wi. wéy ci xibaar yi wax ci leneen muy nag wàllu mbëkk mi ba léegi nag ñu koy waxtaanee euh, ay ndaw euh, takku ngir daal di génn réew mi jaare ko ci gaalu locco li ci mujj nag mooy lopp juróom fukki ndaw yoo xam te ne daal di ne jàpp bëkki demb ca mi gendarmerie def lu ni mel maire dëkk ba nag di koy naqaru di woo ndaw ñi ñu toog ndaxte mën nañu toog fii tekki Ndeye Mati Dieng ñoom ñëpp ci ay gox yu fasantikoo ci Sénégal la ñu jógee maire Popenguine bile di ko dëggal bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Mansour Thiandoum. Euh, les éléments de la gendarmerie de Mbour ak Popenguine diggante Guéréo ak euh, Popenguine la ko am place boobu dafa xaw a day xaw a en général euh, booy xam naa. yi gis na fi dafa wéet rek ñoo ci ko mais bon c'est des éléments de sécurité mooy ñoom lañ leen di bett ko léegi effectivement bi yi boobu ndaayaan la woon côté ndaayaan ñooñu jot ñu sax dañuy commencé woon di nekk ci benn kër foofu am na kër yu xaw isolé foofu donc moment am na réunion de sécurité bu ñu defoon au niveau di ko layalee ne jën moo ñàkk ci géej gi moo ko waral Mamadou Mansour Thiandoum ne loolee xel nanguwu ko. lii nit ñi foogee ne géej gi la rek am na problème yoo xam ne géej day kaaye quoi bu ñu am jën yu mais loolu taxul ñu jël euh, mbëkk mi. ci biir commune bu Popenguine Ndayane ñu ngi fay amal ay yëf yoo xamante ne dafay tax ba xale yi daal di génn ci seen xel lépp luy jël gaal gi mbëkki Ndeye Mati Dieng euh, wax ci taw bi ak loraange yi mu jur ca Kaolack rawatina euh, ca quartier bi di Sahara Nimzat euh, foofu nag mi ngi tëmb askan wa sonn nañ loola nee nañ nag dundatuñu ndaxu ndaxu taw yi bëgg nag kilifa yi daal di leen di gestu ci ni mu gën a gaawee dañuy dem ca Kaolack fekk fa Fatou Mbow. coono gu métti métti métti lañ dul. askan gi yeewoo ca quartier Sahara Nimzat. bëggatuñu banque seenum yoxo ndaxu taw yi nag te di dugg seenum kër rawat nag seen biir néeg Dag. ba nelawatuñu ba yandor jamono ji gis nga ndox mi kay ya ko gisal sa bop ci sun biir neegi ndox mi day ball guddé ak becc ci coono gu metti metti metti metti metti na dé ndox mi bëri na suñu xey amuñu fenn benn soxla ñu ngi fóot ak wër rek gis nga liñ gis nga kër gi ak tank ndox mi xalé yi di touri noonu da lañ koy dundé ñu sonu lool ci affaire ndox taw daal dañu xoss ku ñu ku xossul daal do ñew faj do ñew faj ñom ñi nat di ñaawlu tekk tekkaaralu autorité yi lu ci melni municipalité bi ci jafé jafé yu ñu mel nga xamanteni ñu ngi jànkoon teg ñom ay at a ngi nii Mamour Deme yeewoo ci bile gox gisuñu kenn ku fi taxaw nekk naka ngeen def ak ndox amuñu fuñ ko jooy dafa mel dëkk bi dafa amul maire Nogay Ndiaye di ab meex de famille moom na di am tiitaange ak njàqare loolu ci feebar yi mën a jógee ci yile ndox ci jamonoy nawet jilee tax ba muy sàkku ñu daal di leen di jàppale. yooyu timis ñu fatu danañ pomp danañ taal garab yi yoo dinañ def santang dinañ metti na daal lore moom a si metti xale yi rek bër bu set ñoo ngi def eau de javel di sotti di pompe di def yëpp moo tax ku ñu dimbala daal ñu jël buñ sukkandikoo seeni kàddu askan gi yeewo ca Sara Nimzat nat di xam ne ne dañ leen bedd beddi ci diwaanu Saloum sàkkutef bu ñuy xam xamle jamono ji nat nekkul leneen lu dul système de canalisation ngir ñu mën a évacuer seen ndoxu taw yi saa su nekk. canal moo ñu mën a arrangé bu baax a baax a baax. Fatou Mbow Kaolack. rajo Futur Media Fatou Mbow li wokk waa kaw Kaolack moo xuri waa Kaffrine foofu tamit eh, askan wi nelawul sunu waay andoor ndax ndaxu taw yi nga xamante ne sonal leneen rawatina ñii di waa Diamaguène centre eh, maire ba nag dem fa ne daal daañu xool ni koy fexe daal eh, ba reta bassin de rétention bu col 5 ñu daal di koy liggéey su ko defee wàññi coono askan wi jamono ji dañuy déglu maire bu Kaffrine Abdoulaye Seydou sew ci micro bi. tey yàlla dafa def ci ñetti fan Kaffrine am taw yu bari près de 130 mm ay famille yu bari tay ñu ngi dund lu métti métti ci jamm gën ak ci Kaffrine 2 dund lu métti métti métti kër yu nga xamni ndox mi mo leen jël entièrement loolu nak du lu bess parce que balaa ma nek maire xamone nako xamone na aussi jafé jafé yi nek te ñu am yéene trouver solution mais li am Kaffrine problème fondamental yu ñu am moy d'abord plan directeur d'urbanisme bu nga xamné dafa dépassé war ko yeesalaat depuis 2013 ah, mais plan instrument de planification ñoo wara conduire en plan directeur d'assainissement té lolu tamit mu dess amul Kaffrine kon na bo gisee situation géographique bi Kaffrine nek nga yok ci jafé jafé yooyu day gëna tar mais du lu nga xamné dañ koy faj ben jour mairie Kaffrine budget mu ngi tollu ci 990 millions kon mënu ko mënu ko faj li ko mën faj rek moy nguur gi gën ñu jappalé président de la République na ay mesures yu tar porque que exécutoire equipa ñu ñu te mu ay machine yu fonctionné ñi ko gagné nag ba tey mënuñ ko àggali loolu nag wax dëgg yàlla créé na ay loraange ci population bi mais loolu danañ ci surveiller ba loolu ñu àggale ko même buñ ko àggalee ci jàmm gën te réglé wuñ mbirum école 5 ci bassin de rétention bi ñu ko réglé moo tax man engagé wu naa léegi ci préfet ak ci gouverneur ne man danaa jël en charge pour que école 5 ñu utal ko place mais aussi man ñu tabax fa moom ak franco arabe ñu fa ay préfabriqué nga xam ne au mois de novembre élèves yi mën faa dem massawu population yi parce que ku gis lii xam ni métti na lool fu métti yem métti na lool fa métti yem di kàddu yi Abdoulaye Sow maire bu Kaffrine nekk tam ministre urbanisme ak logement yëkkati lay kàddu bik ba mu demee woon nemmeeku ji waa quartier jàmm gën foofa ca Kaffrine dañuy des sax Kaffrine ak mbir moomu ndax tax yow yu ak mbënd yi arrangé wul ñi nga xam te ne mooy borom jakarta yi nee nañ mënatuñoo liggéey ndax taw yu taw saa sunee ne te la leen jëriñ jafe-jafe reportage Ndao Bey ñu ngi fii ci arrêt benn jabar fii nak jakartamaan yu bari fii la ñuy costé di xaar client Abdou Aziz Diop ak Mohamed Diaw ñu fekk leen ku ne war sa moto di xamle ni ñu ngi dund lu metti ci nawet gi ndax seen mbaar yi nga xamante ni moo leen doon aar ci naaj bi ak taw yi lépp lañ dindi ba mu set. fii daal daa métti rek dañuy toote chaque jour bu yàlla ji taw daal dañuy tooy na trop nag daaw si heure bi ay mbaar fi nekkoon moment bi nag buy taw amuñ bëbutoo amuñ dara. bu yàlla si di taw nag dañuy obligé di lakkatu ci buntu palaasu jàmbur yi ndox bi itam mën a yàq lu bëri. ci seen liggéey. bu dee guddi gi nii sax fekk borom te tëj nga daw fàttu si fii borom place ne mais bu dee bëccëg bi xanaa borom place yi dafa ubbi ñi moo fekk nit kuy jaay nga jël moto taxawal ko ci biir mbaara wala nga taxawal ko ci kanamam waaw loolu moom mooy jafe-jafe bi xam ne ñun am nañ ko moom ndax dëgg la ay moto lañ yore da ci la ñuy suturlu ci la ñuy faj suñu soxla yi ci la ñuy jox suñu soxna yi li ñu soxla daal ci la ci teraanga ne nit nag kenn du ko xeebal teraangaam bëri nañ ci mën a yàq gañ mën a yàq buuse selen dara yooyu yëpp mën na koo bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag lu ci ëpp ci ñoom ñi nga xamante ni amuñu moto tey verse bis bu jot ñeenti téeméer ci suñuy koppar seen njaatigee sonn lool lañu def jamono ji na nga dugg ci ndox yoo xam ne day dem ba wënd moteur bi ba po bi lépp day dugg ci ndox bi te aussi jakarta li ñu ko jëndee seer na luy jël ay quatre cent nangam da nga daw ay course deux cent trois cent man tu maye xaalis te sa moto bu yàqu da am jafe-jafe bëgg ba weertu bu moto bi deux mille bëgg ci faj say soxla loolu mënu nekk bëgg nañu baax trop wax dëgg yàlla bëgg nañu ko Kaffrine Ndeye Awa Bèye rajo Média RFM bitim réew. xibaaru bi réew li ci gën a fës sax daan nañ ko wax sànq ci xibaar yi mooy Gabon ak euh, coup d'état ba fa ki nga xam te ne moom lañ daaneel di Ali Bongo moom sax euh, yëkkati nay kàddu tey ji soxna Fam ñu ngi lay nuyu. maa ngi fay Ndiogo. ayca ñu nga wéyal. Euh, Ali kàddu yi mu ngi ko yëkkatee ci kàllaamay anglais. mu toog ci ab chaise vidéo bi nag daal law jamono ji ci kàddu yi nga xam te ne na ko mi ngi woote ndimbal Eh, di sakku nak eh, ñu ñew dal di ka libéré ba paré nak eh, néna ñi farando ak mom ñu yëngal bu baax bu ko défé ñu mën ko bayyi ci sagom ñu déglu kaddu Ali Bongo yi. am Ali Bongo Ondimba président of Gabon. man la Ali Bongo Ondimba président bu république bu Gabon. damay lancer ben message pour samay xarit yi nga xam ñoo nek fep ci aduna bi gën ñu def bruit dal di woné seen bop ndax dafa am ay nit yi nga xamante dama andon ak ñom ñu dal di leen tek loxo sama njabot sama dom ak itam sama soxna ñoom ñëpp daanaka xaw fu ñu nekk jamono gi te man mi sax sama jëm bopp dama nekk si résidence surveillée te dara xewul jàppale ni nag xaw ma dara lu xew ba tax na may woote samay nit ak samay am di jàmm ñu daal di wane seen bopp ñaxtu ngir wane ni d'accord ñu ci lii. am am thanking you thank you. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne mi tekki kàddu yàlla yi bongo ontimba ki nga xamante ni moo nekkoon président bu Gabon te ñu daaneel ko kon jamono ji mi ngi ci résidence surveillée di kër goo xamante ni du fa mën a génn saa bu ko soobee kenn ci ay doomam teg nañu ko loxo ñoo de ceeg Soda Thiam Gabon nak dañu daal di yeewu ci njaqare fanweeri fan gi ci wéru o buñu sukkandiko ci benn communiqué bo xamante lire nañ ko ci télévision d'état membre bi nga xamante ñom ñoo autoproclamé wu comité de transaction et de restauration des institutions président Ali Bongo mi nga xamante mi nga fa depuis atum 2009 dañ ko daal di dugal ci ab résidence surveillée rax ci doli kenn ci ay domam sax di Noureddine Bongo Valentin Momit, Putchisti, yi dañ ko rek daal di teg loxo te comme nañ ko dooma fësalee ci fan yi ñu génn frontière yi dañ leen daal ñu tëj ca depuis tey jii ci suba rawatina bu kiyee aussi nekk ca sud bu Cameroun transaction yi nag ma ngay woy waaye jaaralew ñu ko ci yoon bëri na ci nag ay zone forestière yoo xamante ni ñu nga ca fin fond Cameroun Gabon Guinée équatoriale foofu frontière ya kenn mënu laa wax na mu mel waaye nag ca poste frontière officielle bii di kiyee aussi foofu amul benn camion boo xamante ni dina fa jaar ca Libreville bi nag foofu mën nañu wax ni que di bi xaw na observateur am na ay oto militaire yoo xamante ni ña ngay romb ca mbedd ya waaye bu ñuy jàll nag dinañ gis ay manifestation de joie waaye itam soldats yi ñoom ña leen di tàllal loxo. jërëjëf Soda Thiam dañuy des ca Gabon ba léegi suñu naataango journal Le Monde jokkoo nañu ak général Brice Oligui Ndema Ngema nga xamante ni euh, mooy chef garde républicaine bu Gabon nga xamante ni moo jiite li nga xam moo di coup d'état bi moom nag yëkkati na ay kàddu ci li nga xamante ni moom lañ tekkaali bonko jamono ji. Brice Oligui Ngema nee Ali Bongo eh, président la war ma gatcha war dañ ko ko jox waye nak président la bo xamantene dafa dem retraite waye nak dañ koy considérer comme gabonais normal eh, lol la kàddu yi nga xamantene mom la Brice Oligui Nguema yëkkati. yeneene xibaar ñel Gabon kon dañ si delu ci topal len ko Fama dañuy wéy wax ci Algérie eh, lu jëm ci coup d'état bi amon ci Niger ñom nak jamono ji li ñu bëgg dal moy soldat ya def transition bu juróom ben wex lol wa Algérie da di wax ndax ñom ñoom xam nañ ñi dañoo wuute kaddu ak CEDEAO mi waxoon ni dañu fa yónnee ay soldats ñu ànd ci Khadijatou Anne. ki jiite Niger fi mu toll nii di général Abdourahmane Tiani xamle na ni fasul yéene yàgg ci nguur gi ñetti at rek la ciy def daal joxe lenge yi réewum Algérie moom jàpp na ni yile processus mën na sax yem ci juróom benn weex bu ko defee coup d'état dootul amati waaye kii di Lounes Magraman di ñaareelu ministre bu Algérie bi yor wàllum affaires étrangères bi demoon na foofule ca ñamey ba amal ab waxtaan ak kii di premier ministre bi Ali Mahamad Lamine Zeyine waaye taxul mu gisee ak ki fa nekkoon njiitu réew di Mohamed Bazoum kii di chef diplomatie bi leeralul ba xam ndax Mohamed Bazoum dina bokk ci plan bu waa Algérie tekk Alger moom lum mu proposé du lenn lu dul ñu amal ab waxtaan politique ci diirub juróom benn weer ànd ci ak bépp parti bu nekk ca Niger te bum am xaaj ak seen te itam ki koy jiite civil lay doon boo xam ne ñëpp a ciy ànd Xadijatu Ann dem ca Uganda benn waay bu toll ci ñaar fukki moom nag boo moyul daañu faat bakkanam ndaxte dañ koy tuumaal mbirum góor jigéen. loole mi ngi am ginnaaw ab loi boo xamante ni ñu ngi kaa dugal ca euh, constitution bu Uganda ci weeru ko mais gi ñu génn waaye nag ñu bëri ne ñu loi bi dafa metti lool bi yoon nag mooy doon bu njëkk. ñu daal tek daan wu ñu toll ko xam ci dañ ko toppee wàllum góor jigéen buñ sukkandikoo ku yor ci kàddu parquet Uganda bi néna xalé bu gor bi ñu ko jappé ci Soroti ap gox wu nek ci Uganda daal di ko placer sous mandat de dépôt le 18 août néna nak liñ koy topé rapport sexuel bi mi ngi ko def koo ni mi ngi am nyinfki fukki at ak ben waye nak morom góoram la lolo waral nak ñu daal di ko tek daan wile waye nak ki nga xamante ni moom di ki am nyinfki fukki at ak ben mom yon top soppeewu ko dara ndax nee ñu dafa am laago te boo amee laago foofule dañ koy wax personne vulnérable foofu ca Ouganda Ndiogo. jërëjëf soxna Fama. RFM Sport. ñu yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne seen Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay gannaaw coow lu ndaw la amoon Sénégal dina dem ci Rwanda lu soxal nag euh, dernière journée éliminatoire yu Coupe d'Afrique. waaye jàpp leen ni équipe bi nga xamante ni moo fas yéene représenté Sénégal ci googu la jogante seen digg ak ñi di waa Rwanda. équipe nationale locale bi lay doon ak nga xam moins de 20 ans yi loolu di ab togal bi nga xamante ne fédération bi daal na ko jël te loolu yëpp dina am nag ci njiitalu kii di Papa Thiaw ak itam euh, Malick euh, Daf lan moo waral kon bokk ñu daal di jël dogal ku ni mel ñoo da sig jàmm Sénégal daal dinay euh, firndeel ni dina wutali Rwanda lu ñeel juróom-benneelu journée bi jëm ci segg kan 2025 bi waaye nag ab sélection à prime nga xamante ni sélectionneur équipe locale bi di Pape Thiaw ak sélectionneur équipe U20 bi di Malick Daf moo war a jouer googu la jogante journaliste sportif bii di Demba Navarro nak gis ne loolu du li gën que Sénégal bi muy contracter match amical ak Algérie du def le 12 xamone na ne que normalement en principe joxone na kaddom euh, Rwanda que day jouer euh, match retour bi fofu nonou donc euh, lu mu metti métti na xol manam num koy numuy numuy nu kaddom man fi mo bëgg insister moy li li jur genre situation yi moy lan moy maîtrise biñu ñak am Afrique ci suñu calendrier. technicien bi di Cheikh Sidi Ba lu ni mel la xamle à sax dafa ragal ëlëk diggante ñaari fédération yi. koy daal di ñagas Sénégal faut mu respecter adversaire bi parce que tay ji ni ni ñu défé ni même bu féké peut être ñom xalatuñ ko mais nit yi mënañ ko gissé nenen né ni Sénégal Algérie le gëna jox respect pour Rwanda match Rwanda bi mom lañu gëna fulal gëna fay dal ko match contre Algérie bi lii nii nar am mëna yaq relation bi entre ñaari dëkk yi entre ñaari fédération ci lolé kon ab laaj di sampo yan joueur ñoo wara a ci équipe A prime boobule Demba Varor di ci jema a tontu. mën nga ci jël ay joueur yo xamné ngi ci sélection U23 bi bo xolé sélection locale tamit war nañ fa mëna puiser ay joueur joueur tamit ci U20 maintenant li nga xamné ne nara moi moy est-ce que yenn joueur yi dinañ mëna am sen libération parce que délai de libération joueur yi nga jamais ni ñu ngi jouer à l'étranger euh, day nek quinze jours. laata nak ñuy am liste joueurs joueurs yi nga xamante ni ñoo war a amal jongante googu diggante Sénégal ak Rwanda fédération sénégalaise de football nag moom daal dinay firndeel ni équipe A prime bi dina jóge ci Dakar ngir wutali Kigali juróom benn fan ci weeru sàttumbar ngir jouer juróom ñeenti fan ba tey ci weeru sàttumbar

waaye ca bañ doon amal lii di assemblée générale extraordinaire bi démb ñi nga xam te ne daal ñoo ŋànk fédération bi dañ ko daal di euh, joxaat seen kóolute ngir mu daal di kon boo ko jiite daanaka sax euh, par acclamation la mën nañu ko waxee noonu ndax gañe bi nga xam te ne gañe na ko ci xayma téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-benn moom la ñu daal di votel moom mi nga xam te ne moo di Mamadou euh, ture euh, waaye lu ci mënti am rek euh, jàpp leen ni moom fi mu toll nii ñàkkul ni dinañ indi ay leeral ci lu jëm ci élection boobu li nga xam ne daal nañ ko ko tabax ak itam nan la war a mën a jiite li nga xam te ne daal moo di fédération malienne bu football te caabi daal di ko féetee ginnaaw bu loolu weesoo ñu daal si waat suñu réew daal di waxtaane wàllum nawetaan. ODCAV bu Saint-Louis ak onkav ñoom nag fi toll nii réero daal na am seen diggante instance boobu nga xamante ni kii di Mamadou Ba moom moo ko daal di diriger ni ki fan dafa daal di amal ab point de presse maanaam démb la sax loolu amal ab point de presse stade Mawade Wade ca Ndar ngir daal di kon boo ko dénoncé maanaam ñàkk fulal bi leen ñàkk fulal ba pare di leen buntu xatal loolu nag nee nañu faw rek mu dakk ba sax nee nañu tolloog AIC ak ñeent ñoo daal ak ñeent ko kon bok ñoo dal di kon bok botu seen ginnaw ngi dal di kon bokk yeggali xeex boobule dañ si dal di deglu seen porte parole du jour modi di Mamadou Ba Mamadou Ba mom nga xam mom modi porte parole euh, du jour euh, bu euh, onkav bu bu ORCAV kon bok bu ndar mom la ñuy di kon bok deglu bu fekkante ni yëf yi mat ko incha rek ñu dellu si ci suñu yeneeni jotay xibar ak mom mi nga xamante ni bokk na ci jamono gi ñi nga xamante dañoo di taxo temb ngir dal di xeex ONCAV ci taxway bi nga nga xamante ni daal am nañ ko foofu jëmale ko seen kaw si lu jëm ci wàllum organisation nawetaan foofule ca ODCAV bu Saint-Louis. jërëjëf sëñ Cheikh. DSL ak seen marque bii di Dekakila direction de la santé mère enfant ak Kenkeri AAD ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ndox mu bari mi ne gàññi ca Touba ci la l'observateur xëy di xuus Touba tout haut maanaam dëkk ba léppum ndox la nii la ko journal bi bindee ci xëtamu njëkk ci biir mu ñuy wax ne ci jamono ji nga xam ne ay fan yu néew moo des suñu digg ak màggalu Touba gi ca Touba googe bari na fa ay kër ki quartier yu inondé ba fees dell yéenekaay bi nañu donte wa ONAS di office national assainissement ak waa def nañu fa liggéey bu mag boole seen doole ngir saafara inondation yi ca dëkk ba terewul ndox maa nga ne fa jasar ne fa xuus amaatu ca jànnatul mahwa ca yoonu daaru xudóos gaaraasu daaru muxti ba ngelamu fu ci nekk Abdoulaye Bamba Sall bu l'observateur dem na fa daje fa ak askan wa inondé taataan seenub coon ak seenub jaaxle ba tegal ñi ko ci xët mu njëkk journal bi am na kenn ci ñoom ku ko xamal ne fi ñu nekk nii fu ñu teg seeni ndab ba mën a togg sax amuñu ko am ku ko tegalit ne yi ñu jëndoon ngir di ko dunde ak yi ñu waroon a togg ci màggal gi daanaka lépp la ndox fañ fang fan la mesure am mujj Vox Populi ak lii quotidien xëy àndandoo di ñu xamal seen xët yu njëkk ne ministre intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome nee na yi état bu Sénégal jëloon jëm ci màggal gi muy ci courant bi di ci assainissement bi bu dee engagement yi téem téeméer woon def nañu juróom-ñeen fukk ak ñaari mu di 92 nañu waaye terewul am na ay rëq-rëq di manquement yu ñu nemmee ko ba duut ca baaraam Serigne Ousmane Mbacké coordonnateur comité d'organisation bu safar bi journal ne nañu moom li ko miti nee mooy retard yi am ci travaux yi ñu doon def ngir régler problème yu inondation yi ci Touba li mu bëgg xam moom sëriñ bi mooy lan moo tax ñu yeex a songu liggéey bi Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre gis gën a farlu wax na leen nit ne bari nay kilifa yu may jàmbat ay jafe-jafe yu ñu am ci courant bi ci jamonoy màggal ba tax na lu ngeen ci doon def rek ñoo ngi leen di ñaan ngeen yokk ko cheikh mohamed fadal mbàkke mooy ki matal cheikh abdul ahad mbàkke mooy ki yokk waaye ki fondement di cheikh modou moustapha moom la surnal bés bi le jour xëy jagleel xëta mu njëkk ci bésub tey bi cheikh modou moustapha mbàkke mi njëkk a doon xalifab sëriñ tuba cheikh mat bamba xaadim bi mi ngi ñuy yenn ci liggéey bu rëy mu liggéeyal yoonu murit ci weneen wàllit surnal bés bi le jour mi ngi ñuy xamal ne suba ñoo ngi koy séentu Touba Touba ba Ndakaaru jàpp fépp ci Sénégal journal Le Témoin nee nañu dogal bi ñu fi jëloon jëm ci wàññi njëgul yaas bi yëf ya ci échec total ci la mujj ndax tey la wàllu gën a ay Mor Gassama dib économiste di ñu wax ci journal bi ne mesures yi état bu Sénégal jëloon na ko jëm ci wàññi njëgul yaas bi dogal yi mu di mesures yi amuñu njariñ ci askan wi réeroo am na ci waa kër Ousmane Sonko yi journal Le Quotidien moo ko bind li ñu dégg keroog docteur Diallo Diop wax ko mu di budul di keneen waaye Pastef dinañu amub candidat ci présidentielle yi 2024 yi xalaat boobee Le Quotidien nee nañu ànduñu ci ñoom li ñu xamle mooy candidat bu Pastef du doon keneen ku dul Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko moomee Le Quotidien mi ngi ñuy xamal ci xët mu njëkk ne Serigne Habib Sy Dabakh mi ngi koy ñaan mu dakkal grève de bi muy def ñu def demi dellu ci l'Observateur ca quartier Pikine ga ca Ndar bari na fa ay famille yu nekk ci jaaxle gu rëy jamono ji li ko waral yéenekaay bi nee nañu moo di seen doom yu bari dañoo jëloon gaal doon dem bitim réew ba ñu demee ak léegi def na weeru yàlla te ba léegi dégguñu la ñuy nettali Salif Ba ab asalem jóge woon Sénégal ne dafay jaare Nicaragua ngir dugg Amérique ca la demee Mauritanie jóge fa jàll Maroc jóge Maroc dem Espagne laata muy wàcc ca Bogota ga ca Colombie ngir dugg Nicaragua keroog dimanche ji weesu suur soi nee nañu ca lay soog a dugg Amérique waaye ba mu nee cëpp ci aéroport John Fitzgerald Kennedy bu New York fa la faatoo DSL ak seen marque bii di Dekakila direction de la santé mère enfant ak Kenkeri AAD ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ñu koy gërëm bu baax a baax moom moom Mamadou Mouhamed Ndiaye doon ñu jàngal ci yenn kaay mbokk yi foofu leen yem yéen ci xibaar yi euh, léegi-léegi niñ koy defee journal di màggal ak équipe RFM bi nekk jamono ji ci yoonu Touba ñuy gërëm bu baax Abdoulaye Diop euh, ci machine bi euh, production Kaderlo naka lan tom chef d'édition Awa mbay léegi-léegi kon journal di màggal ngeen ci ànd ak Georges Dethie Diop Yacine Pouy moo nekkoon ci digital bi jaa deen jëf ñeen ak je ngeen jëf mbokk yi ñu dalal leen jam ci numéro bu journal bu Grand Magal dem Touba defe ko ci saxaar si dana mën a nekk at gii nii ndax euh, grand train yu Sénégal danañ door seeni rotation ajuma gi ñu dëgmal loole directeur bu GTS moo ko xamle Samba Ndiaye ne nag kaaraange gi dana mot sëkk. raay yi nga xam ne ci la ñuy daw dafa war a baax loolu nag dafa am société bu ko yore bu tudd CFS. ñoom def nañ liggéey boo xam ne du mu pare. am nañ ñu leen ko xoolal dañ leen ko xoolale ba pare ñoom ñu won ñu ne mën ngeen a daw ci raay yooyu ñu waxtaan ñu ne li mooy ñu essayer ko maanaam jël otoraay yi dawal ko te benn client du ci nekk loolu def nañ ko ñaari fan diggante Thiès ak Njaaréem def nañ ko ci jàmm otoraay yi dem ñëwaat ci jàmm kon mën nañ jàpp ne diggante boobu baax na mu des diggante njaareem ak Touba foofu itam monsieur le ministre Mansour fay ak équipe fan yële dem nañ jaar ci ak saxaar ñu yegg ba Touba dem ba ci xalif bi ziyaare ko ñibbisiwaat ci jàmm kon mën nañ xayma ne raay bi jóge Thiès dem ba Touba autoraay mën na cee daw léegi nag ñun ñi nga xam ne ñooy GTS wax naa ne def nañ ñaari yoon diggante Thiès ak Njaareem dañoo bëgg tey ci àllarba bi ñu jël ay nit dugal leen ci autorail bi pour ñu def li tubaab di wax diggante Thiès ak Touba maanaam mu am ay nit suñu liggéeykat yi nekk ci boori gaar yi ku nekk ñu wax la li nga war a liggéey bu ko defee dina tax ñu xam liggéey bi bu baax ba aljuma le premier septembre bu nit ñi di tukki tukki bëgg na yomb ci ñoom loolu bëgg nañ ko def te ñu ngi ñaan yalla def ko ci jamm yegg ci bu Touba delu ci ci jàmm kon nak mën nañ japp ne li nga xamne mom lañ warona war ko def def nañu ko kon am nañ yaakaar ne tukki mën nañ ko def ci jamm talibé ya ci région bu euh, matam ñu ngi ci yoon wi ngir dem euh, touba at gi ni dañ ko tolenti organiser ab journée bi ñu duppé magal bokk kok askan wa ali bandel ñang ci waxtu gi ñuy dëgmal magalu Touba ci atub ren bi talibé mourid ti nek fi ci Matam amal nañu seen bëccëgu bernde di ab bëccëg bi nga xamanteni bi moy ñentelu at ñukoy koy amal ñuy japp bëss bi bu déssé ben semaine rek ñu daldi yegg ci Touba laata ñuy tak seen ay bagage dem ci dëkk bu sel ba talibé mourid yi dañu organiser ab bëccëg bi nga xamni dañ ci jang alcorane jang xasaayit saxu jamm ci bi rew mi ginnaaw bi ñu sante yalla ñu jël ci yonent bu sell bi sant suñu sëñ di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi ren na ci neuvième audition juróom-ñeenti at ci ren maanaam ñu koy def jubluwaay bi rek lu dul boole mbokki taal ci dëkk bi maanaam xamee wuñu xeet xamee wuñu ñu koy sante ko ci Cheikhul ci ay bërëb bërëb yu fasantikoo kër kilifa diine yi fi nekk yëpp ci Ceerno Sama Sam Matam Ceerno Aliou Thiam ak mbokki taalibe yëpp daal pour ñi xam ne ñu waajal màggal gi nga xamante ni moom lañu Sëriñ Tuubaa waxu ñu sant ndax am nañu fi nekk ñoo xamante ne nii xëy na xamuñu fuy Touba mosuñoo dem Touba xamuñu màggal mais ñooñu war nañu leen woon loo xamante ne nii maanaam leen daral daji paas ngir xool la fa nekk gannaaw jàngalum sëriñ bi ñi nga xamante ni ñoo di taalibe murid yi jagleel nañu berndeel ñi nga xam ne ñoo di communauté bi dëkk ci Ourossogui ñu gën see ràññee nag jéego bi nga xamante ni def nañ ko jëmale ko ci kilifa diine yu mag yi gox bi yu mel ni Thierno Aliou Thiam ci Ourossogui ak itam Thierno Mouhamadou Samassa ci Matam mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ña fi ci doonu Matam pour RFM. ay fan des ñu egg ci magalub Touba jamono ji nag euh, marché yi dañoo fees dell ak nit euh, jigéen ñi di dem ngir jën la ñu yóbbu Touba commerçant yi gis ci seen i bopp reportage yu Seydina Bilal Niang. ab xumbaay la ñu nemmeeku ci marché Castor. iPhone yu new dess ci màggaluk Touba jigen ñi ñew lu bare bari ngir ndugu ci Thierno Diouf dib kat ñu fekk ko ci butigam di ñu xamal ne seen liggey mu ngi dox jamono ji wa alhamdullah client ñi ñew de ñi ñew ndank ndank de bu de gëna jige nak ñi gëna yok inshallah mais nak ñi ngi ñew quand même wa mo yi ñi toggee rek ay soble power kani laaj ak epic ak bouillon yi yi mi andal lepp luy dem ci tok rek lool yëpp day jaar ah. ñi ñew ndank ndank ndànk ñi ñew ndank ndank alhamdullah fallu momit di ab kat di xamle lu ni mel waaw macha allah di wax dëgg yàlla client yaa ngi ñëw de allah ñu ngi sant ba di sant ku tedd ki rek màggal gi daal daa waroon nekk moom ñaari yoon ci année bi su boobaa ci lay gën a tey xam naa ne waaw ñu ci gis di ci gisal suñu bopp sëriñ bi nag ndax xam nga ak lu mën a xew dañ ci sóoraale sëriñ bi daal dina prix abordable yoo ni client bu ñëwee allah bu demoon ba Touba da ko mën a am daal lu ko soriwul dara Marème toll ci fanweeri at moom mi le ñëw ngir ndugg si di xamle ni nduggee fii moo gën dem ba Wah waaw xam nga soo demee ba Touba day xat nga nduggee fii moo gën yomb dem ba Touba soo demee foofu at day xaw a metti comme nga génn di duggi loolu moo tax Touba moom mooy gën a xéwale ko ndugg bi mais dafay xaw metti ñoom commerçant yi di xam le ne seen liggéey jamono ji dox na bu baax a baax waaye rek jàpp nañ ni dina gën a neex fii ak màggal gi di gën a jege ngeen di teewlu journal bu grand magal xale yu jigéen ya nga xamante ne dañuy def ay foo cils naka noonu itam ay foo ongle artu nañ leen ndax loole dañ koy tere Touba tere googu bi ko tere Touba nag euh, tax na ba ña cay yëngu ñoom euh, nee nañ ñoom daal lañu doon euh, dugal ci seen i poos wàññeeku na bu baax Omar Mbow dem ba ca marché HLM bile tànt bi nekk ca marché HLM pose faux ongle ak faux cils rek moo ko tax a jokk. ci suuf nag ay bon bari fa lool client yi daal di si toog ñoom nag dañoo ñëw ngir defar seeni sil ak seeni ongle yilee xale yu jigéen ak mère de famille màggal Touba bi moo leen tax a jóg moo ne de li dañ koy tere ci dëkk bu tedd ba. non man fii nii rek laa koy defee sama loxo ak sama bi. mais mais dañ koy tere foofu xam nga. Ah, naa dañ ko fay tere moom wax dëgg si yàlla waaw. léegi terewuñu lii de xam nga la ñuy tere ñu ne ay sil gudd. waaw pose man pose ma ongle man damay fuddoon. da ngay da ngay émaillé quoi. damay ñuulal tànk bu mu ñuul xam nga fuddoon kenn terew mu doon luy gàllankooreel liggéey bi bi ñu sukkandikoo ci xale bu góor bi nga xamante ni moo leen doon tegal wee ak sil yi. waaw mu bu baax a baax mu ngi feñ bokk ak daaw daw daa une semaine yaa ngi liggéey mais saa bii nii affaire yi lépp taxaw. ndax ndax da doon am ay clients yoo xam ne dañ doon dem màggal ren gisoo leen quoi. waaw daw heure bii nii clients yi macha allah. moom nag ne ab Baye Fall nu mu solo rasta yi ak sikkim bi boo ko gisee rek xam ko. da ngay incha allah man euh, mu affaire rek dans deux jours ma dem ah. magal Touba bi ay fan rek moo ci des tax nag yi lay bay faal di wax ne xale jigéen ñi ak maire yi nga xamante ni dañoo artificiel lool nañu moytu. daa xam nga ne lii dañ koy tere Touba xam nga ko. jërëjëf Omar Mbow jàppale ni itam njiitu réew mi ñu ngi koy xaarandi euh, baax Le alxemes Makisal, Sall ca Adem, nga la fay dem ci de courtoisie bi mu fas def ci général des Mourites. mu nekkoon journal bu Grand Magal ñu leen di jaajëfal jox leen dig ci numéro.